alors Souleymane comment faire admettre aux Sénégalais cette nouvelle donne politique <laughs> on fait deux alternances dama doon wax sànq nga dagg ma deux alternances démocratiques le président Macky Sall <coughs> s'apprêtait à passer la main pacifiquement de la plus belle des manières on nous plonge dans un report de l'élection présidentielle une certaine opposition fait dans l'hypocrisie eh dans la majorité eh ouais. ah, euh, eh ouais. quand l'essentiel est en danger dañ s'opposer est un devoir se est une trahison les hommes politiques là moomuñu réew mi Maïmouna non xaaral rek Souleymane may ma ma terminer une certaine opposition qui voulait le report fait dans l'hypocrisie dans la majorité on manœuvre pour liquider le candidat euh, choisi nekk ci tension communauté internationale bi di ñu ŋàññ ay journalistes français yu ndaw euh, di di di di ŋàññ suñu suñu njiitu réew qui n'a pas de leçon de démocratie à recevoir euh, de de leur de leur de leur dirigeant Macky Sall qui était chanté adulé un peu partout dans le monde après on nous parle d'une d'un pays qui doit entrer dans une phase de transition euh, le ministre de l'économie Doudou Ka il théorise une transition il dit que le président sortant n'est même pas obligé d'être le président de transition. On nous parle d'un second dialogue, on nous parle d'une quatrième loi d'amnistie. Et autour de tout ça, il n'y a pas de consensus. Mais Mouna. Comment nous faire admettre ça Nan, nan la ñuy ñun sénégalais ñun ñun la masse silencieuse là. Ah. nan la ñuy def. Ah, ba ba lii jàll ci suñu xol nan la ñuy def. Maymuna Euh... donnez-nous des arguments donnez-nous de l'espoir waaw non pourtant sànq ba léegi moom laa lay wax xam nga sunu nu sunu réew toll ak démocratie bi fu mu toll moo tax coow am bu dul woon seen démocratie Sénégal ni mu tollu kon wax du am bu fekkonte ne kenn nay jël buum di dogal di buum di bummi di def lu ko neex ñëpp ne patt kenn du yëngu kon lii du ñu du ñu ci wax euh, consensus nag ay acteurs ñoo koy wut c'est une quête c'est une démarche du lu nuy décréter noonu consensus dañu koy wut moo tax président ne nanu discuter pour xool problème yi ñiy évoqué waa PDS ak problème yi ñi nga xam ne ñoo bind Macky Sall ne ko il faut arrêter le processus wax ko bëccëg ndara kam ba ñépp dégg ko bu ñu paree fii dinaa la woon ay message WhatsApp dis-lui d'arrêter tout ça dis-lui kan moo wax loolu dis-lui donc quand je dis qu'il y a une certaine opposition qui fait dans l'hypocrisie pourquoi mais nee naa la dañu manifester ñaari fan ñetteel bi ñu ne wuti perfusion moo tax gisoo leen àjjuma damu na euh, sénégalais yi waruñ leen a foowee xam nga foowee leen mooy la de ñu ngi ñuy foowee ñu ngi foowee suñu avenir. janvier laa wax ne politiciens yi ñu ngi bugg a tas dëkk bi janvier laa ko wax ci tolluwaay ci Sénégal ma ne politiciens ñu ngi bugg a tas Sénégal.